waaye sa ji biig bi nu waxtaanee ci guddi gi bi may tëdd yaaye woo ma appel vidéo jotoo ma dootuma fenal kenn te dootuma bëgg lu neex nit ñi ba wax loo xam ëllëg yomal xiyam bu ma tëddee dan may duma ndax kenn du ma fa fekk sama jëfa ma fay fekk ñëpp neena nan maas boogaa benn dafa baax man leen baaxuma wallaay nit ñi boo baaxul ci ñoom duñ baax ci yow mbooloo mi maa ngi jéggulu badara maa ngi jéggulu kàddu yi commissaire maa ngi jéggulu kàddu yi yéen ñu fi teew ñëpp lu ci baax yéen ñi doon dégg la waaye lu ci dëng man mi doon wax maa matul la sama yaay saajo maa ngi koy nuyu taaloo woo ko tudde nga malal mi nga xay ni mooy taaw macha allah tudde nga Seydina Mohamed sa taaw laa tudde doom bàyyi leen ma ma dem bàyyi leen ma ma dem dina ma jox eh andaw ñëw na xoolal fi ma ko laaj ak ki ñëw xoolal fi ma ko laaje ak jàmbaar yi Amadou Fall Seer Njaay ba biran jëboo nga ca ngay góor dëgg bàyyi laa la Fall yegg si na andaw a ngi noonu te dangaa dajeeg may laaj sa rakk fukki junni ndax moom la nu tuddee ji ñu may imaam ñu may imaam mu jël kàddu buñ paree eggale ca la nu nekkoon li nga xam ne moom lañu ñu docteur yi di wax nee na mooy nañ koy jéem a jëfee nee na ñoom xamuñu ci dara de amuñu ci dara lamb jotee lu la ñuy def kii mooy commissaire defe naa ne ku dégg Balla Gaye dégg commissaire Baye Ma Ndiaye Lamine Golo mu nekk benn génération tey Salif di seen rakk di loo ñu mën a ci saalif ak doom ji nga xam ne nañ Omar la ko tuddee waaw wax dëgg yàlla am naa mbégte trop nag am naa mbégte trop si doom ji ñu tuddee ki nga xamante ni mooy Omar Sakho Salif suñu rakk la euh, man du ma xarit man Balla Gaye mooy sama xarit mais après dañoo dem mujj gi ma ma bokk moom benn atelier bu ñuy liggéey muy menuisier boobu saa yu duggagul si làmb comme baa nag ma nekk patron am boobu léegi nag nii nga ko xamee nii noonu laa ko xamee Salif gaawut du mer du jàpp mer xam nga du xuloo du xeex moom fair play rek lay demee wax dëgg yàlla jox na cëram mag tam magam tamit jox na ko cër bu baax a baax a baax a baax ba tax na tey tur bi ñu mu tuppee Omar noo du ko réccu quoi man xam naa ne Balla Gaye képp ku moom moom rakam tuddee ko doom du ko réccu ma xam naa loolu waaw. ok merci. Salif. Salif ndokkale daal ndokkale daal laa lay wax ma. ndokkale ci xew mi. waaw joo far tey nga am euh, bébé yàlla na gudd fante wér nga jël sa mag Balla ngeen bokk ndey baay mu jógee barki dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga tuddee ko doom loolu lan lay wane. waaw loolu dara parce que njëkk bi ma fi ah njëkk bi ma fi. xëy nag li li li rafet dafa di li gën ci njaboot di gën ci famille waaw xëy na ma am suma xol am suma yéene rek tuddee ko parce que euh, xëy na yéene gi ma amoon ñu bëri taxoon nañ sax jàpp nañ moom laa ko waroon tuddee mais dama ku ma wax dama naan la noo tuddee mbokk wax dëgg yàlla ku ma wax dama naan la tuddee mbokk waaw. xëy tey mu nekk surprise say xarit ak say mag ñoom Badara ngi nii ñii say mag lañ ñoom Lamine ak ñoom commissaire ah ñii ñëpp ñëw ay magam waa say mag ñëw wër. maa maay seen kilifa. ñoom ñi ah. waaw ñoom seen kilifa. ñoom ba nit nit dina la mag. nga féete ko kilifa. lu tax. waaw doo ma laaj lu tax ma wax la ko. lu wax ma ko ok ñoom dañu ma leen dénk. waaw ah, dañu ba dara. moom ay waajuram ñoo ma ko dénk. moo tax ñoom euh, samay waaw la ñu war a wéyee. waaw xam nga tudd naan tur dañ koy nëbb. bu ba nga joxe ko. waaw mais rafet na boo ko jox nga jox ko ci tur bu rafet aussi nga def ko loo xamante ni mën na mën na nekk loo xamante ni ëllëg waaw doo ci am loo ci a baax parce que tamit jigéen bu baax la ku ma muñal la ku am naa jabar waaw ñu bëri yàlla xam na ko bu ñu toogee am naa jabar dañ may ay dañ may reetaan rek. parce moom daan nëbbutu quoi. amul benn problème franchement parler su ma génnoon ba xaaju guddi ñibbi si ñëw tëdd du ma ne foo dina ma taajal ma lekk roota ma ndox ma sangu su ma paree daa tëdd te bu ma xëyee suba même kanam may woon dina kafa ma dina reetaan ak man te lu ma am ak lu ma ñàkk la yemale wax dëgg yàlla. tey su ma la laajee ci Omar mi dem ziar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay ay nit naan dafa war a bàyyi bëri wala dafa a continuer loolu loo ciy wax. waaw xam nga nit <laughs> dafa am loo xamante ni nit da ko war a dund ñun ndaw ñi sax ñun bu ñu amoon moyen war nañ dem di ziar loolu waaw parce que yonent bi ñëpp a fa bëgg a dem dem ziar ko nag ça n'a rien à voir ak bàyyi bëri lam benn métier la benn temps bu ndaw la bu jeexee rek jeex na waaw dafa war mu war a dem dem na ziar ko. xam nga ñaan na yàlla ëllëg li muy am ci làmb mu dem mu yóbbuwaat ko ci GM jaarewaat ko xam nga. dama la gis ci l'observateur yow lañ fa dalal tey nga ne pare nga pour bëre ak Balla ak da nga koy dëgg. non dama ne waa jàmm laaj wax day ma ko adversaire yi nga xamante ñoo fi nekk te bëriwuñu limal naa ko ñeneen ak ñeneen ñoo am a neex ñoom Yékini Junior ay garga ñoom laa ko limal mais dafa na mu fekkoon sa choix boo ciy jël ma ne ko du dëgg waaw parce moom moo ñu sut wax dëgg yàlla te bëri moom mooy suma opportunité suma gis-gis waaw parce que moo moo ñu raw ci làmb fi mu tegu tegu ñu fa fu mu jaar jaar ñu fa fu mu agsi tey agsi ñu fa ku ki dee wax la sa gir Gris mooy suñu patron ci làmb ñun waaw mais kon na bu yàlla maye sa patron jox la loxo kooku sant yàlla voilà. kontaan ci yow Saly. dal jàmm ma kontaan ci yéen. gisee liggéeyu ngi leen ci remercier bu baax a baax parce que tamit dérangement bi ngeen am te woowuma leen aussi tamit yëg-yëg rek moo leen permettre ngeen ñëw ci man maa ngi leen di sant bu leen gërëm te it yàlla leen yàlla jox seen yëfu bopp moom it télé bi site bi yàlla na ko dem ba sotti ko télé yaa gën a xam kontaan naa ci yéen. moo parce que damay dégg xam nga damay dégg des fois liiru jaan naan andaw andaw andaw bàyyi faal bi ah. andaw andaw a ngi nii Lamine Cukkuli andaw Njaay defe naa noonu la demee ah maa ngi lay bëggee andaw waaw maa ngi lay nuyu naa nga def yaa ngi si jàmm ba parce que may dégg mbëri géej waaye yëpp di la tudd tey Salif di tudd ma gis la fi ñoom ñëpp lay ñoom ñëppay wax sa tur lan mooy diggante andaw waa géej waaw maa ngi nuyu ñëpp Salif moom sama rakk la sama xarit la sama xarit la vraiment bisu tey bisu rafet la ñoo koy ñaanal nag mu mu dem ba fe ba ba fekkee njariñu doomam quoi vraiment kontaan nañ trop si ñoom ñoom samay rakk lañ samay xarit lañu waa géej nag mbëri man mu leen fay ñoom ñoo bëgg ñoom samay gaañ lañ quoi ndax ñun fi leen dëkk loolu la quoi. am na ci kooku de moom fu mu taxaw di la tudd Lirou Diane kooku loo seex ak moom. non Lirou Diane moom sama nijaay ah, ah, ah. moom moom sama nijaay la moo tax moom dafa nekk sama nijaay pour nekk sama xarit nijaay ju doy waar waaw mais sama nijaay non gars yi loolu nijaay nijaay moom nijaay joo xam ne fu ma waxee ak man ñaari bat ñaari ñett dóor ma <laughs> non sama nijaay la moom loolu moom dóor yi may dóor yow kon yaa ngi koy est-ce que yaa ngi koy gis dinaa wax ak moom na bàyyi dóor yi dootul dóor dégg nga bàyyi dóore dóore baax dootul dóore dootul dóore bàyyi dóor yi kontaan ci jërëjëf merci waay gaan jërëjëf waay dara foo gis Salif gis ko fa ñoom ñaar defe naa ne suba ak ngoon la wala ma ne waaw dara doxul seen diggante daal Badara bu Sathiès la ñëpp xam Badara maa ngi lay ndokkale ci bis bu nga xam ne moom ngeen di ngénte say seen doom ndeysaan waaw Babacar ñu ngi lay nuyu di la ndokkale yow tamit waaw ndaxte ci monde bi nga nekk moom ci lañ nekk quoi a ndokkale quoi. Euh, tey loo loo yëg sa digganteeg Salif loo ciy a lu li ma yëg mooy baax na ma ko xamee démb laa xamee ba tey na ma xamoon ay magam démb laa leen xamee ba tey te du tey daal su ma juumal at yaa ngi bëgg a bëri lool at yaa ngi bëgg a bëri lool suñu ànd man a moom léegi xam naa ne yàgg na daal yàgg na trop ndax lu am depuis 2008 ba léegi xam naa ne yàgg na quoi ànd bu ànd la daal. ànd bu sincère la bu baax ànd bu sincère la waaw. Uh-huh. faw ma cof la ci laam ñu ndax dégg naa ko ci suba ci l'observateur bi mu ne moom Gris Bordeaux dañ maanaam Gris a dañ koy ñaan sens. am na loo xamante ni foofu buñ fa eggee sax war na mais Gris dañ koy ñaan sens bu bëreeg moom. parce que yoon la nag mu may ñu chance ñu bëri tamit parce que ñoom bañ ci toll seeni mag dañ leen a mayoon chance bi muy bëri Yékini Yékini da koo may chance soosu fa woon de dañ ko mayoon chance parce que ci défaite la jóge ñëw bëri yëg nii waaw. moo tax ngeen bëgg mu may leen chance. a may chance ñu daan ko dem defi leneen wallaay waaw lamb ji li ma la wax rek lamb ji ñun boo bëggee dégg-dégg Babacar retour bi ñuy ñëwewaat ci lamb hmm? non ku gàtt fan ku ne moom di nga yéex a gis suñu jël waaw bu soobee yàlla. Ah, ñun de yàlla dañ gudd fan. waaw amiin na yàlla ñëpp. yàlla na ñëpp gudd nga doon seede bi. instant bi roi des waaw moom rek lañ bëgg. Assane. alay a Babacar. loo wax ci li kii wax. waaw li ñuy wax mooy Gris Bordeaux dañ koy dimbale rek ndax xam nañ jafe-jafe yi mu nekk instant bi non ñun xam nañ xam nga tamit boo toogee bëre woo yor ñaari soxla yor ñaari kër njaboot gi wër la xam nga facture ndox yi dafa seer na ñëw ñu may ko chance mu bëre moo gën sinon oto gasoil lay dawal de dafa war a dawal oto essence te ñu ñoo ko koy may boo ma re oto gasoil lay dawal bu bëggee bëggee dawal oto nooy na ñëw bëre jun dawal oto essence voilà ñu koy may chance rek lamin Faye waaye gaay yi Lamine Golo la ñoo xam ne turoo na man sa golo jéem a ci xaw a metti rek waaye la Lamine ah. bu tur boobu baax Lamine Faye moo gën a wóor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ la tuddee waaw man de ku ma waxati Lamine Golo baalu ma la ko Lamine Faye laa tudd Lamine Faye laa tudd baalu ma la ko ku la waxati Lamine Golo baalu ma la ko kon leer na nañ tey kii ngeen te defe naa sa rakk la mhm. muy Sa Thiès waaw la loo mën a wax si non Sa boobu li ma mën a wax ci moom bari na ndax sama rakk la ju jara rakkoo ndax am na yar am na teggin am na lépp wax dëgg yàlla ma koy ñaanal rek xale bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu fekkee njariñam loolu rek laa koy ñaanal te naan ko man daal Saly su may wax ci moom day xam nga rek dafa maa jox cër ba ga xam ne nii du ma mën a wax ci moom daal. mais ko tuddee Balla Gaye lu mu def ci yow. non kontaan dafa def ko war rek. dafa def li ko war rek ndax mën naa ne Omar mooy kilifaam mooy papaam mooy yaayam mooy léppam moo tax tey ji su tuddee Omar rek mën na bett ñëpp mais comme ku ko dégg naan da laa bett rek da ngaa xamul mais ñun ñu bett quoi. daa def li ko war fi mu ne nii. lees moom duma ko bàyyi mu dugg ci kër gi lees. <laughs> Babacar ñoo ngi lay ziar. tey defe naa kii moom euh, turu papaam nga yore di ko bëree wala nga tudd ñu tuddee la papaam muy ngénte tey jël doom ji tuddewaat ko Balla Gaye 2 mi nga xam ne tamit yéen a yàgg a nekk di bëree ndoo. waaw mais loolu moom dañ koy sante yàlla suñu borom bu baax a baax a baax ndax kii suñu doom la suñu rakk la mu màgge suñu keppaar xam nga nekk ku yaru am. respect si doomu aadama tey dafa delloo buum sa bay bay ba waaw parce que tey am na jur na doom tuddee ko magu Balla gay waaw muy malal mu juraat doom tuddee ko Balla gay 2 kon moom puso bi mu jëwul si loxoom rek mu réere ko bu ñëpp doon def ni moom famille day gën a jaxasoo rek waaw ndax bu këram bu yeewoo am Balla gay yeewoo biir këram keneen keneen def noonu rek benn famille du tas yàlla na yàlla dooleel ba euh, téye liir bi mu màgg ba leen di teral moo ak Balla Gaye 2 yëpp ak mère Sadio ak sama turandoo yëpp kontaan naa si yow maa ngi lay ziar Mbaye Mbaye sapar sapar moom àddina bi xam nañ ñoo lay ziar bu baax. raam ba nga raam maa ngi lay setaan ak lay ziar. raam daa xew. xewoon na sax waaye da ko war di gën di feddali. nee naa nag yi bu fekkee ku raam ngeen rajo ko da ngeen manqué alkaati da ngaa bëgg ku raje. man rajo nan ma suñ Modou Kara rajo na ma ah. rajo nan ma. mais mais mais mais tey mbay yow sa digganteeg famille bi lan la sa digganteeg famille Balla Gaye de famille Double Less. waa jàmm rek ak salaam. lu xew ma fekk fi mbay waa jàmm rek xam ñoom dañoo am jàmm am salaam moo tax loolu xew la rek ma ñëw waaw noonu la demee. ba pare Balla di sa mbër defe naa. waaw day sama xarit sama xarit la Balla muy nit ku ku am yëg doomu aadama loola tax lu ñu xewle rek ma ñëw. mais luy mbay sapar sapar loo ni sapar sapar ji. mbay ma ko tuddee. sisoloo men mu mag. waaw lu tax mu tuddee la ko. xam moom daa ragal corona. bi corona bi doog a ñëw ma ñëw euh, di ko nuyu rek mu ne ma oh. daal sapar sapar ji corona bu bari bi ku nga lëfër lëfër jëm. ci ko sàcc nag tuddee ko sama bopp. daal di jël lëfër lëfër ji ak sapar sapar ji. waaw daal koy jël waaw. waaw mu mel ne lëfër lëfër xew yoo yëpp dafa bari de lëkk lëkk jeeg ŋaatar ŋaatar jeeg darax darax jeeg sibir sibir jeeg dookor dookor jek sapar sapar jeeg ñasaw ñasaw ji ak jañax jañax ji ak sànjang sànjang ji dafa bari am na yu génnagut ay baati wolof la lépp ay wolof la xam nga wolof fi mu ne doo ko waxee ñu bari duñ ko xam mais ay wolof yu wér laa indi waaw tubarkalla